2021, une autre vision de la télé. asalaamaaleykum man la Khadim Mbacke euh, Khadim Mbacke doomu sëñ Abbas ñu may wax Khadim Mbacke Abbas sëñ Abbas nekkoon xalifa bu Daaru Muxti maa ngi juddoo Daaru euh, fa la jànge alxuraan après ma alxuraan bi ma jàng école arabe après bi ma amee sama bac arabe ma am inscription euh, université Paris 4 Paris Sorbonne ma def euh, littérature française option communication voilà jànge ba master 2 après ma ñëwaat Sénégal di liggéey si communication bu IPRES pourquoi la politique parce que c'est la c'est le contenu du livre maanaam téere bi li nekk si biir moom mooy euh, politique lay wax moo tax ñu titre téere bi tudd la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba mais li si war a leeral mooy ne politique baat bi dañuy wax ne dafa am nu bëri nu mu koy tekkee nuñ koy tekkee nu nu muy nu lu firi baatu politique ci niñ ko gisee ci téere bi nekkul politique bi nga xamante bi ne Sénégal moom lañ gën a xam muy politique boo xam ni da ngay wut da ngay wut pouvoir bi wala da ngay wut nguur ak tamit euh, boo ko wutee ba pare yan pexe yan tactique ngay def pour man ko conserver baatu politique ñu bëri buñ ko déggee ci sens boobu lañ ko gën di jëmale mooy politique boo xamante bi ne au sens machiavélique du terme maanaam politique ni nga xam ne Machiavel noonu la ko gisee woon mais waaye ci téere bi nag moom politique la comme ni ñu koy waxee ci sens bi nga xamante bi ne sensu Aristote parce que Aristote dafa jàpp ne l'homme est un politique nit yàlla daf ko bind muy dund ci société léegi nag société boobu ñuy dund naka lañ koy organiser ba mu tegu ci ay principe mu tegu ci ay règlement mu tegu ci ay valeurs humaines loolu la téere bi wax euh, moo tax baatu politique boobu noonu mooy politique au sens aristoté euh, aristotélicien du terme maanaam mais nekkul politique boo xamante bi ne ni ko Machiavel doon waxee maanaam euh, wut nguur conquérir le pouvoir ak tim boo ko conquérir ba jot ko naka ngay def pour man ko téye man ko conserver loolu taxul téere bi jóg mooy waaye euh, naka la ñuy defaree nit ba nit ki nekk un citoyen exemplaire modèle boo xamante bi ne rôle bi mu war a am ci kaw suuf wala ci ci réewam dina ko mën a def ak defin boo xamante bi ne dana amal njëriñ société mais du yàqal mukk société loolu tamit moo nekkoon mission sëñ Touba sëñ ñëwoon di defar ay nit ba nekk nit nit mission bi mu am ci kaw suuf moo ko remplir loolu tax baatu politique bi. ñu ñu def ko titre poli bi poli politique différence bi mooy maanaam dañu wax ni la politique mën na nekk comme un art politique boo xamante bi ne art lay nekk sëñ Tuubaa bu ñu doon xool politique am politique la doon def politique gu mooy dañu wax ne y a deux conceptions de la politique la politique comme une technique il a politique comme un art bu ñu jëlee politique comme un art mooy politique boo xamante bi ne euh, nit ki ni ko yàlla bindee ndax dañu wax ne doomu aadama dafa nekk euh, nit ku am xel nekk tamit ku social maanaam euh, l'être humain est un être social et raisonnable léegi nag raison boobu doomu aadama amee ak sociabilité bi mu amee naka lañ koy mën a tàggate ba nit ki ñaar yooyu nekk ci moom muy caractère sociale bi ak caractère raisonnable bi mu mën ko mu mën ko jëfandikoo ba nekk nit ku nite xam nga xam nga nit maanaam peut-être ci ci ci ci ci olof bu ñu doon wax olof maanaam maanaam nit rek la ñuy wax waaye boo doon jël beneen langue bu amee ni arabe am na am na ay sens yu bëri yuñ mën a wax ci ci baat buy buy buy firi buy dellu ci nit waaye day wuute bu ne annaasu wala alqawmu ci arabe day am différence moo tax nit nag ci ci ci ci olof ba ñu ko doon euh, gën a préciser mooy nit ku nite loolu mooy politique bi Serigne Touba doon def maanaam defar nit ba mu nekk nit ku nite ku baax koo xamante bi ne ni ñu ko définiree muy l'être humain c'est un être raisonnable et aussi un être social maanaam ñaar yooyu di di définir nit mu fexe ba ñaar yooyu mu remplir ko fexe ba xelam ndax dañu wax ne li tax yàlla di teg ay ay obligation doomu aadama mooy dafa nekk nit ku am xel maanaam dafa nekk être bu am xel mais nit su xasee ba xelam deñ sax ci moom duñ ko tegati dara duñ ko teg jaam yàlla yi ñu ko tegoon yëpp day wàcc kon euh, xel moomu nag mooy tax nit ki man di def lu baax ak di moytu lu bon loolu moo nekkoon mission bu nga xamante bi ne moom la ñuy Serigne Touba ak yonante yi nga xam ne dañ ko jiitu woon wala ak ñi nga xamante bi ne dañu am approche boobu ci politique noonu lañ doon gisee politique mais bokkut ak nag politique ni ñu ko waxee ci jamono ji nga xam ne buñ ko waxee rek mooy waxante loo xamante bi ne wut nguur la te niñ koy wutee tamit wutin bi lu ci ëpp nekkul lu rafet ñaar bi tamit bu ñu ko wutee ba am ko ni ñu koy téewee tamit nekkul dans l' de de des des des des populations ñu si bëri bu ñu bu ñu amee une responsabilité politique wala une responsabilité fonctionnelle ni ñu koy gérer loolu nekkul ci intérêt des population kon nag loolu bokkut ak mën mënuñu wax ne mukk dafa bokk ak politique bi Serigne Touba doon def Serigne Touba politique am mooy toujours maanaam loo xamante bi ne defar nit nit nit nit nit ku nite pour mën a remplir mission bi mu am ci kaw suuf loolu moo nekk différence bi nekk ci ni ñu mën a xoolee politique bu Serigne Touba ak politique boo xamante bi ne ni ñu koy defee ci jamono ji nga xamante bi ne ñu si bëri tey am nañ ci li ñu wax benn benn gisin boo xamante bi ne c'est dafa péjoratif moo tax ñu jàpp ne sax képp ku am képp ku baax wala képp ku bokk fu baax waroo dugg si politique te ñi gën ci société bi ñoom ñoom la ñu war a dénk société bi kon mën nañu wax ne ni ñu defee politique ci jamono ji wutee naag trop ni ko Serigne Touba gise woon waaw pour explication bu simple par exemple mën nañu jël mën nañu ñëw Serigne sëriñ Serigne Touba bi muy dem si bi ñu ko exilé euh, maam Thierno Ibrahima Fati mi mu dénkoon njabootam daf ne ko <coughs> dama lay digal bay dama lay digal nga bay ca mbay mi li ma lay digal ngay bay lu ñuy lu ñuy dundee nga bay lu ñuy dunde tey boo xoolee ci suñ dëkk africain yi boo boo jëlee fu Sénégal Sénégal li ñuy bay mooy arachide lañuy bay arachide bi kenn lekk ko léegi te loolu lan moo ko waral parce que Banque mondiale ak FMI ñoom ñoo imposé woon les pays africains ñi nga xam dañoo endetté wu pour rembourser seen ay dettes ñu ñu def li ñuy wax le renoncement de l' de de de de euh, l' agriculture vivrière au profit de l' agriculture de rente maanaam agriculture boo xamante bi ne da nga da ngay bay waaye li ngay bay doo ko dundee danga koy jaay après pour am xaalis pour mën a jënd loo bayee loo loo dundee ak jënd li nga soxla arachide boo ñëwee Sénégal ñu koy bay mais kenn du ko lekk wala boog duñ ko lekk comme ni ñuy lekkee ceeb ba demee Mali ñu ñu imposé woon ñuy bay coton et Burkina Faso dëkk bu ne waa Côte d'Ivoire ñu ñu imposé leen ñuy bay cacao. léegi agriculture boobu noonu dëpp wut suñu ay réalité socioculturelle parce que bu fekkee ne tey jii doxul agriculture de boobu par exemple Sénégal bu fekkee ne baykat bi dafa bay ba nawet bi jeex amul gerte gu bëri ñaari conséquence moo koy dal mais benn day am li ñuy wax la la famine day xiif ñaari bi day am pauvreté parce que gerte bi mënu mënu ko bay jënd ci lu ba jaay ci jaay ci loo xam dana ci am lu dund wala dana ci am ay soxlaam faj ay soxlaam léegi moo tax bu fekkee ne gerte gi nawet bi doxul rek ñaari conséquence automatiquement mooy ñëw mooy ne à la fois baykat bi day day day day dugg ci pauvreté dugg aussi ci famine moo tax ba demee si àll bi ñu bëri dañu xiif parce que li ñu bay <clears throat> mënuñu ko mënuñu ko lekk te dem na ba yàgg mbay mi <clears throat> bu ñu bayee pare li si li si jógee du bëri loolu nag moo tax ma ne boo expliqué maanaam exemple bi ma jox ci ci wàllu ci wàllu mbay mën nañ ko jox ci domaine yu bëri ci éducation santé yëpp maanaam moo tax ma ne programme yi ñu jël wala ni ñuy ni ñu doxalee suñu société yi dëppwut ak suñu ay réalités socioculturelles moo tax depuis bi ñu amee indépendance ba léegi mënuñu dem parce que ni ñuy ni ñuy jël dañu koy imposer par exemple banque mondiale Sénégal boo amee ay dettes danaan la sa éducation ni nga koy doxalee sa santé ni nga koy doxalee sa agriculture ni nga koy doxalee te ni mu lay wax maanaam boo demee am na ku ñu wax Bob Dernaar moom bind benn benn benn benn benn benn livre tuddee ko repenti d'un assassin économique moo wax ne banque mondiale objectif bi mooy ba maintenir les pays les pays les pays pauvres maanaam du ñëpp c'est pas uniquement les pays africains mais les pays pauvres bu njëkk ay Corée ay ay Japon ay dëkk yu bëri ci lañ bokkoon ñu maintenir dans dans la pauvreté maanaam programme yi ñu lay tegal du nekkul ci suñu intérêt ñun mais si intérêt tubaab bi la léegi nag ñun moo tax ñoo war a am suñ ay suñu ay dirigeants yi nga xam ne ñoo ñu jiite programme yi ñu teg moo xam économique la wala social wala éducation bu fexe ba dëppook ñun besoin yi ñu am. est-ce que Sénégal gerte la soxla est-ce que Sénégal maanaam ay ay ay ay diplômé ci wàllu littérature wàllu philosophie wala yooyu la soxla est-ce que mënuñu orienter suñu enseignement ci beneen domaine boo xamante moo ëpp suñu ay kii moo tax ma ne programme yi teg ci livre bi dëppoowul ak ñun suñu ay réalité réew parce que parce que parce que boobu moom dafa wax ni euh, xam nga li ci si olof dafa am lu ñuy wax ay ñetti sëriñ par exemple am na li ñuy wax sëriñ sëriñ sëriñ boo xam ni daf lay daf lay jàngal dangay ñëw mu wax la jàngal alxuraan wala jàngal la diine am sëriñ boo xam daf lay yar maanaam yar la pour li nekk ci yow mu deñ bon am na ñoo xamante bi ne dañu ñëw euh, bëgg ay nelaw sëriñ bi naan la ju maanaam guddi bi del julli vingt raka trente raka wala nga bëgg lekk mu lay woorloo day xool daal yow défaut yi nekk si yow loolu mooy sëriñu tarbiya sëriñ boo xam daf lay yar xool yan défaut moo nekk ci yow mu fexe ba dindi ko ci méthode bi mu lay teg am na sëriñ boo xam ne sëriñ boo xam yóbbu ci yàlla maanaam nit ki dafa ñëw bëgg àgg ci yàlla sëriñ Tuubaa boo xoolee ñu si bëri bi ñu ñëw si moom ay maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ñu si bëri dèjà am nañ benn niveau mais dañoo bëggoon ko leen àggale ci yàlla sëriñ Tuubaa moom it am mission boobu noonu moo tax bi mu ñëwee Pape Mamour Ansali doon jàngale maanaam maanaam dafa xëy dajale ñëpp ne képp koo xam ne jàng moo la fi indi woon mën ngaa dem wuti beneen sëriñ buy jàngale ndax jàngalekat yi bëri na Sénégal waaye nag képp koo xam ni yoon bi ñu trasé bëgg nga ci ànd ak man ñu dem ci mën nga resté ànd ak man am ñu dem am ñu toog loolu nag maanaam moo moo moo moo mooy li ñuy wax l'acte de naissance euh, du mouridisme maanaam ci la euh, ci la ci la am mu tolloog ay cinq 1855 55 yooyu ci la sëriñ moom la wax daal mooy déclaration boo xamante sëriñ bi def na ko après bi mu ko defee divi dafa mbooloo mi dañoo divisé wu am na ñoo xam ne comme dañu ah, man jàng ma fi indoon comme léegi jàngaleetul wala dafa am leneen lu mu si bëgg boole man loolu damay dem wuti feneen am ñu resté ñoo xam ñi reste nag ñoom ñoo constitué le le mouridisme le premier groupe du mouridisme waaw waaw waaw boo xoolee par exemple Serigne Touba am mbindam dafa bëri ay niveau yu ci nekk parce que euh, sëriñ bi bind na si domaine yu bëri bind na di jàngale par exemple grammaire arabe conjugaison bind na bind na di ja ay bind yoo xamante bi da ci tàgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam di di wax ay jikkoom ay baaxam ay yooyu bind na di di wax ay ñaan yu ñu war a def ak yu demee noonu bind na tamit ci bind di wax ko par exemple ci wàllu euh, civisme maanaam ku nekk ci société naka nga war a comporté woo par exemple boo jëlee benn téeréem bu ñuy wax euh, Nahju Qadaa il Haaj la la voie de la satisfaction des besoins sëriñ bi dafiy daf ci jàngale la politesse maanaam nit ki naka nga war a comporté woo ci société bi naka nga war a waxeek nit ñi naka nga war a dëkkeek ñoom booy dox ci mbedd naka nga war a doxee euh, booy booy booy booy booy lekk naka nga war a lekkee soo nekkee mag ku la mag naka nga war a comporté woo ak moom soo nekke ak sa sëriñ soo nekkee ak sa mag mais boo xoolee ci téere boobu noonu dès le début dafa dafa wax ne nit ñi ñetti ñetti boo bëggee noppalu ci àdduna nit ñi da nga leen def ñetti catégorie ki nga xamante bi yàlla ma moo la mag nga def ko ni sa ay waajur ki nga xamante bi ne yaa ko mag nga def ko ni sa doom ki nga xam yéen a maase nga def ko ni sa bopp boo xoolee ci début téere bi loolu la wax loolu nag noonu la noonu la continuer ba téere bi jeex téere bi par exemple di jàngale wàllu wàllu wàllu civisme ak wàllu politesse nit ki yar ak teggin bi mu war a am ndaxte loolu mooy déterminer maanaam nit ki ndax nite na wala nitewul parce que nit suñ suñu suñu comportement loolu moo ñu xaw wutale ak yeneen yeneen kii si mbindam tamit par exemple am na ci loo xam ne wàllu jàng wut booy wut xam-xam par exemple ci wàllu ci wàllu jàng am na ci boo xamante bi dafa wax ne nit kiy jàng buy buy jàng war na war na war na am quatre objectif yu déterminer am jàngam premier objectif bi mooy par exemple man damay jàng parce que dama bëgg a génn ci ignorance dugg ci xam beneen bi mooy dama bëgg su ma jàngee ba am xam-xam sama xam-xam ma jël ko jëriñ ko euh, nit ñi maanaam deuxième objectif mooy loolu ma Sëñ Tuubaa def ne booy jàng ba am xam-xam par exemple booy jàng médecine ba am man a faj koo gis da ko war a faj même bu amul xaalis danga ko war a faj beneen bi mooy nga nga nga nekk ku nga xamante bi maanaam da ngay da ngay da ngay maanaam maanaam euh, keneen ko beneen troisième objectif bi mooy nit nit euh, maanaam euh, nga fexe ba dundal xam-xam ndaxte xam-xam tey jii li ñu wax science dafa war a nekk di évoluer tey jii bu njëkk portable yi mën nañ ci nekk exemple bu concret bu njëkk portable dafa doon rëy mais léegi dañuy def téléphone yoo xamante bi ne koo ko gis da nga xam ne technologie avancée nu baax yow bi jàng tamit moo xam domaine boo mën di jàng xam-xam wala xam-xamu diine wala xam àdduna war nga am ci sa ci sa ci sa objectif nga fexe ba fi xam-xam fi nga ko fonk fi nga ko fekk nga fexe ba participer ci développement xam-xam kon sëñ Touba fexe na ba teg ay objectif ah, am na ci boo xam ne tamit dafa wax ne kii jàng war na am ay war comportement bu mu nekk ci moom nga xam ne comportement bu mu wax da koy da koy mel da koy comparer ak benn animal par exemple mu ne kii jàng kii wut xam-xam mën na dafa war a ñeme xiif ba mel ni gaynde maanaam wut a nekk ku bëgg lekk benn biti mu ne dafa war a nekk nit ku nga xamante bi ne dafa dafa war a lewet a nekk ku comme étudiants yi ni ñuy def buñ kii rek daal di génn toj kii mën ne sëñ bi ne dafa war a lewet ba mel ni muus nga xam ne set comportement la teg nga xam ne ni mu ne c'est obligatoire pour un étudiant mu am ko wala boog képp kuy sàkku xam-xam nga am ko nga xam ne bu mu wax day jël benn animal ne dafa war a par exemple ne dafa war a xiif dafa war a xiif mel ni gaynde war a lewet ba mel ni muus war a ma war a tamit maanaam maanaam maanaam maanaam euh, wala bëgg njàng mi mu am ci détermination ba mel ni un chien ab xaj nga xam ne loolu buñ ko buñ ko wanoon nit ñi tey jàngal leen ko danañ ci jàngate lu bëree bari kon mbindum sëñ Touba mën nañ ci fekk aspect yu bëree bëri mën nañ ci fekk aspect yu bëri bëri ci wàllu didactique wàllu wàllu wàllu politique wàllu wàllu politesse wàllu théologie wàllu wàllu grammaire arabe lu bëri na aspect yu ci nekk ndax moom dundam yëpp presque da doon bind kon bëri na ay ay ay ay thèmes yu ci nekk. mouridisme mouridisme moom idéologie bi maanaam maanaam c'est lislaam l'islam mooy maanaam parce que Serigne Touba xalaatam yëpp si xalaatu l'islam yonent bi sallallahu alayhi wa la wax daf bi booy général daf ko mas a ko mas bind ay question ne di ko question bi si njëkk lan mooy yoonu murid la ko njëkk a laaj lan mooy yoonu murid Serigne tubaa bi muy tontu dana ko yoonu murid mi ngi basé wu ci ñetti fondement mooy iman islaam ihsan mooy gëm yàlla ak tamit sume iman mooy gëm yàlla islaam mooy ab règlement yi yàlla teg nga nga nga respecté ko julli woor ak yooyu ihsaan mooy nga rafetal loolu mooy kon lislaam bu ñu nee idéologie la tamit amul lenn lu ko différencier ak ak ak ak ak ak ak bu dee yeneen idéologie nag lu mel ni ay communisme ay marxisme ay ay nazisme yooyu doomu aadama mooy ci xalaatu boppam ci xelam mu jub mooy jéem a xalaat dara ba teg benn idéologie maanaam bu dee nag yoonu murit moom mënuñu wax ne sëñ Tuubaa dafa toog rek di xalaat mais dafa sukkandiku ci alquran ak ci ak ci ak ci xadis bi ak ci dund yorante bi ba teg parce que l'islam tamit dañu war a dañu war a xam ne alquran maanaam texte la bu nga xamante bi ne boo xoolee tey jii benn l'islam moo am benn alquran moo am mais bëri na ay li ñuy wax ay ay ay traduction coranique kenn ku ne interprétation bi nga ciy am interprétation mouridisme nag mooy interprétation bu sëñ Touba man noonu laa ko gisee maanaam yoonu murid nekkul idéologie boo xamante bi ne day différence ak l'islam mais sëñ Touba dafa am te jàpp naa ne mooy bi bi gën a bi gën a jub parce que mm, ci Sénégal nii presque ñoom ñëpp interprétation boobu lañ amee muy ay suufi ay suufi ay suufi lañ kon l'islam ak yoonu murid amul différence mais l'islam yoonu murid mi ngi si biir l'islam amul amul benn différence nekkul idéologie boo xam dafa nekk idéologie à mais nag am na ay aspect ci lislaam yoo xamante bi dañ ko dañ ko sàggane woon sëriñ bi maanaam maanaam ñëw gën ko leeral par exemple ñu bëri tey boo leen waxee sëriñ jébbalu wut sëriñ ñu si bëri dañuy jàpp ne euh, maanaam loolu lislaam amul ci lislaam ca ca wala boog buñ la waxee li nga xamante bi ne maanaam sëñ Touba ni mu waxee ne am murit noonu la war a mel wala ñeenti critères yi définir murit euh, par exemple mu ne la euh, un murit warut am choix ci kanam son maanaam sëriñ bi choix murit bi dafa war a dugg ci choix murit bi ci waa sëriñ bi loolu tey boo demee ci lislaam da ko ciy fekk ndax yonent bi boo demee ci alxuraan yonent bi dafa am benn saxaaba boo xamante bi ne yonent bi bi dafa maye woon benn rakkam bu jigéen ab ab benn waay saxaaba bi bañ alxuraan wàcc daan ne maa kaana li muminin wala muminatin isa xada allahu wa rasulu an yakuna lahumul xeer maanaam ab julit bu góor wala bu jigéen bu yonent bi décidé amuñu amuñu choix kon yoonu murit buñ doon xool li ko tënk li ko li ko composé lépp lu nekk la ci biir alxuraan ak lu nekk ci biir sunda moo tax ma ne amul amul différence ñoom ñaar nekkul idéologie bu ñu leen wax am na idéologie daal mooy idéologie islamique lay doon. mission bi maanaam mooy euh, boo xoolee defar doomu aadama waaye ci ci defar bi boo xoolee dafa am contexte mooy mooy mooy sànq bi li nga njëkk laaj. mu ne lu tax mu mu def déclaration am ñu dem dafa wax ne bi mu gisee ak yonante bi yonante bi daf ne ko yaral sa sa ay nit rabbi asxaabaka bil himma maanaam defal ci ñi la topp ñu am li ñuy wax ambition ambition bu sori tey boo xoolee maanaam euh, nit bi muy ñëw dafa fekk nit ñu ñuul ñi ñu génn ci esclavage après esclavage ñu dugg ci colonisation ñu ne leen nit ku ñuul fii nga mën a yem am na foo xam ne mënoo fa àgg ci wàllu intellectuel ci wàllu ci wàllu croyance euh, jàppoon nañ ne nit ku ñuul mënut a dem ba créer ab ab ab confrérie yor yor wirdu boppam ndax wirdu yi am Sénégal yëpp ci ay naar la jógee ñu ñu jox ñu ko mais jàppoon nañ nit ku ñuul warut am wirdu maanaam moom moom moom particularité am maanaam mu wax ne euh, yonent bi moo ko wax yonent bi bi mu gisee ak moom moo ne ko rabbi ashaabaka bil himma defal ci sa ñi la topp ñu am ambition ñu xam ne fu nit moo xam tubaab wala naar moo xam ku mu mën fu mu mën di àgg rek ci wàllu science ci wàllu culture ci wàllu réalisation fu man mën di àgg ci wàllu même ci wàllu yàlla nit ku ñuul war na fu mën a àgg moo tax itte boobu la def ci ñooñam ba ñëm ñëpp jàpp ne lu nit di def rek nit ku ñuul war na ko mën a def te loolu pour briser benn benn benn sentiment complexuel bu nit ñu ñuul ñu amoon loolu taxoon sëriñ bi maanaam bokk na ci li nga xamante bi ne loolu bokk na ci li ko gën a ràññeetle ak ñeneen ñi maanaam fexe ba complexe bi nekkoon ci nit ñu ñuul ñi ñu deñ bañ xam ne lépp lu nit di am ci àdduna nit ku ñuul bu defee effort bu bi nit ñi def war na ko mën a am loolu loolu bokk na ci li ko gën a ràññalee moom. parce que parce que sëriñ bi téere bi ma la waxoon sànq sëriñ Tuubaa dafa wax ni nit ñëpp ñoo yam négation mooy loo xam ne day day weddi lee parce que boo xoolee nazisme par exemple nazisme ñoom dañ ne. Euh, ma Hitler dafa wax ne dafa am ñaari dafa am dafa am ay race li ñuy wax race aryenne race aryenne mooy race bi féete kaw ñoom mooy race al bi bi bi nga xamante bi nañu jàpp nañ ne wàllu wàllu xel wàllu civilisation wàllu yëpp ñoom ñoo féete kaw or sëñ Tuubaa wax ne maanaam nit ñëpp ñoo bokk amul race amul couleur amul sant amul lenn parce que benn nit la yàlla sàkk muy aadama après à de Adama mu sàkk ci Awa soxnaam nit ñëpp nag si ñaar ñooñu lañ jóge kon bu fekkee ne ay te loolu dem nañ ba science ba science fi mu nekk nii nit ku nit ñu ñuul ñi li tax ñuul mooy lañuy wax mélanine jant bi fu mu nekk day day day da ngay am vitamine D boo xamante mooy tax sa deru peau bi di ñuul mais amul benn benn benn beneen explication bu mën a am bu bu expliquer ñi weex ñi ñuul ñi jaune selon fi nga nekk ci ci ci ci ci géographique euh, sa température bi tàngaay bi yooyu mooy déterminer sa couleur de peau mais nit ñi ñoom ñëpp ñooy am. léegi nag Serigne Touba loolu la fondement boobu la teg maanaam xam ne ki sant Mbàkke ki sant Njaay ki sant Jóob ki sant ñëpp yam léegi nag fi ñu rawantee mooy ku ci gën a dàq jaamu yàlla wala ku ci gën a ku ci ëpp lu mu def effort foofu la ñu rawantee mais rawante wuñ ci juddu rawante ci ci couleur de peau rawante wuñ moo tax bu dee yeneen yeneen idéologie nag lu mel ni nazisme wala communisme ñoom dès le début dañuy classé nit ñi nga xam ne yow effort boo mën def am na classe boo xam ne doo fa dugg mukk parce que yow déjà ah, bi ngay judd dañ la classé ngi mel ni ñun suñu société bi rek dañ naan diw tëgg la diw lii effort ba mën def catégorie sociale bi ñu la dugal mënoo koo génn loolu nag sëñ Tuubaa daf ko tere moom dès début wan ne nit ñëpp a yem nag kenn ku ne effort bi nga def noonu la la yàlla yi faye loolu donc benn moo tax ma ne négation la ci communisme ak yooyu nga xam ne ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo am fu ñu catégoriser nit ñi te loolu yàlla moo ko njëkk a tere yàlla wax ne maanaam maanaam yonte bi tamit ay xaddisam yu bëri boo xoolee boo xoolee Bilal Bilal dafa nekkoon nit ku ñuul am na benn saxaaba bu mas a jotee bu mas a joteel ci wax saxaaba bi ne ko yow ma wax yow parce que yow nit ku ñuul nga keroog keroog dañu wax ne keroog lañ mas a gis yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu mer mer ba kanam gi ku gis xam ne dafa mer mu ne man defoon naa ne eh, effort yi ma def yëpp te yàq ngeen ko defoon naa ne esprit eh, loolu sax la wax ne eh, esprit obscurantiste yi amatul ci yéen mel ni wax ay jaahiliya maanaam di jàpp nit ñi ci ay askan wala ci pulo wala ñu gënante déedéet nit ñi ci jaamu yàlla ak baax ak effort la ñu gënante moo tax sëriñ bi tamit loolu la confirmé waat bi mu taxawal yoonu murit xam ne kenn ku ne solo sa effort moo la yóbbu fi nga nekk mais du fi nga bokk sa papa wala sa sant wala sa couleur de peau wala yu demee noonu moo tax man la négation la ci yeneen idéologie yi nga xamante bi ne chaque jour dañ doon dañ doon classé nit ñi jàpp ne européens yi par exemple boo jëlee ku mel ni Jules Ferry boo gisee Sénégal fii dañ koy dañ koy tudd ay école di ko tudd ay rue boo demee ville da nga gis te Jules Ferry dafa taxaw à l'Assemblée française mu wax ne il y a des races supérieures et mu daal ni nous les races inf supérieures nous devons civiliser les autres races donc ñoom dañ ko gëmoon ay idéologie yoo xam ne dañu gëm ne nit ñu tollowuñ ci niveau léegi nag ñi nga xamante ni ñoom tubaab yi nga xam dañoo am nekk ay race war a ñëw civiliser ñun Europe ñun ñun africains loolu nag maanaam l'islam daf koy dàq Serigne Touba daf koy dàq dafa teg société boo xam société mérite la méritocratie li ñu koy waxee méritocratie moom mooy mouridisme daal nga ne tey ji mën nga gis ku sant Fall ku sant Ndiaye ku sant Mbacke ñëpp nekk ay sëriñ selon seen effort yi ñu def si si si kii waaw loo loolu déjà boo xool boo xool man li mooy li ñu waxoon sànq rek copie collé bi ñu def ñu tegal defal la programme euh, par exemple da ngay gis fii ñu wax ay plan ay plan Sénégal émergent te loolu ay cabinet yu nekk Paris ñoom ñoo koy def def nga xam ne dëkk bi rek la ñu changé boo demee dañu def benn plan boo ñëwee Sénégal bu bu commandé gouvernement Sénégal ñu def plan Sénégal émergent bu Gabon commandé ñu def plan Gabon <laughs> émergent nga xam ne ay ñooñ maanaam sax duñ teg seen tànk Sénégal xamuñu sax ay réalité sénégalaise waaye ay cabinet li ñu fay leen ay milliards ñu ñu ñu ñu ñu ñuy def ñuy defal ay plan léegi copie collé boobu ñuy def euh, euh, est-ce que ñun dañ ciy continuer di dem wala est-ce que dañuy dañuy basé wu ci suñu ay xam-xamu bopp suñ ay réalité bopp su suñu ay suñ suñ suñ suñu ay man-manu bopp pour mën a dem wala boog dañuy kii tant que nag ñi ngi def loolu noonu man jàpp naa ne duñ duñ dem ndax loolu ay plan la wala ay programme yoo xamante bi ne c'est c'est des théories mi ngi mel ni tey jii bu ñuy wax banque mondiale buy wax buy buy buy indiquer la pauvreté day wax ne ku mënta am un dollar par par par par kilo par par par jour mais est-ce que loolu réellement mooy mooy mooy mooy mooy benn dollar par exemple man man dafa néew ba mu ëpp moo tax bëri na lu ñuy wax ñoom te loolu ñun dañ leen siy topp te pour man dëppwut ak réalité am suñu dëkk bi moo tax moo moo tax euh, déjà am na benn bindkat euh, France Fanon doon na ko wax bu yàgg déjà mm, tant que ñu ngi jéem a toppandoo européens yi duñu déjà sax dafa paradoxe la par exemple fekkee ñu dañ ne dañu soxla indépendance 1960 ñu am indépendance bu ñu amee indépendance dañu war a jàpp ne dañu war a doxe neneen mais su fekkee ne dañuy bëgg dox ni tubaab yi doxe kon jotoon ñu laaj indépendance maanaam nañu kon ne resté nekk ci biir France di di dox comme français yi mais fekkee dañu bëgg def euh, république boo xam ne day correspondre ak ay loi yoo xam day rëpp maanaam nañu dootoon ñu laaj indépendance maanaam pour man mais boo xasee ba am indépendance ngay affirmer sa indépendance ci doxalin boo xamante bi ne day dëppoog sa ay sa ay réalité socioculturelle waaw xam-xam xam waaw xam-xam moom si sëñ Tuubaa li mu wax lu mu amul mënta baax maanaam bokk na ci rek parce que maanaam moom euh, côté bi def ko révolutionné tey jii boo xoolee dañ am na benn keroog benn waay moo koy dégg dañ naan wax doomu soxna doomu soxna mooy koo xam ni dañu wax ne boo juddoo da nga a jàngi même am na ko xam ne benn jour dafa ñëw sëriñ bi laaj ko ne ko ana sa doom ji mu ne ko mu ne ko bu doon góor a dee mën na mën na dugg daara mu ne ko bu dee jigéen nag mu ne ko ni góor war a jànge noonu la jigéen war a jànge maanaam xam-xam <coughs> par exemple sëriñ boo demee ci benn téereem bu mu tuddee le le le viatique des des adolescents euh, sëñ dafa joxe benn exemple mu ne nit bu fekkee dafa julli ba pare par exemple la wax dafa ne nit julli ba pare bi mu bi mu jullee pare nga laaj ko ne ko li nga doon def lan moo ci farata ak lan moo ci sunna wala mu ne moom xamu ko sëñ bi ne non seulement julleem gi baaxul mais dañ ko ciy bindal bàkkaar ndaxte yàlla daf digal ko demal jàngi ba pare avant ngay pratiquer sa diine kon maanaam mu ne xam-xam lu mu jiituwul moo xam pratique bu mu mën di doon pratique gu la wala pratique gu loolu mun a baax moo tax sëriñ bi dafa wax ne dafa wax ne xam-xam c'est obligation wuti xam-xam maanaam jàng ba xam sa diina par exemple c'est une obligation moo tax mu ne wa talabul maanaam maanaam maanaam uh, awluma aw jabahu rahman dafa wax ci benn mu ne awluma aw jabahu rahman xataan ala al mukallaf al iman tummata maarifatuma yuslu bihi faradal ayni mu ne nit ki xasee ba majeur li njëkk a war ci moom mooy mu mu gëm yàlla waaye bu gëm yàlla jàng li deuxième deuxième obligation bi ci topp mooy mu jàngi ba xam ba xam ay farataam jàng boobu nag ci farat ci ci diine ci wàllu mu mën doon moo xam journalisme la moo xam médecine la moo xam lu mën doon nit ki da ko war a jàng avant mu koy pratiquer kon mën nañu wax ne deuxième pilier ci mouridisme mooy le savoir moo tax c'est c'est un élément très important aussi dans le dans l'enseignement de Cheikh Mou waaw mooy li mu wax maanaam ma bon bu bu fekkee ne da nga doon def ci da nga doon da nga doon catégoriser mooy deuxième élément bi gën a importance maanaam maanaam bu gëm yàlla jàllee rek xam nit ki li li bu xasee ba majeur gëm yàlla la war a njëkk def peut-être nag mais bu fekkee da nga juddoo ci ci ci famille musulmane maanaam parce que l'islam bi moom da nga koy judduwaale mais boo xasee ba majeur kon li nga war a njëkk def mooy danga nga war a jàngi pour pour pour pour pour xam sa diine wax jàng ak yar ñoo war a ànd su fekkee dafa war a am bu manqué na na njàng mi manqué waaye yar bi bu manqué parce que daf mu ne nit bu fekkee dañ ko jàngal te yaruñu ko ab seytaan lay nekk day yàq rek xam tey ji bëri na fii ay kilifa yoo xam dañ leen dénk responsabilité ñu yàq rek parce que yaruñu leen maanaam yow bu fekkee da nga ñëw nit ñi dama leen bëgg a jiite dama leen bëgg a jiite bañ jiital la au lieu ngay defar nga yàq yow mi jiite mooy ne am nga xam-xam mais amoo yar moo tax moo tax bu fekkee nag dañu wax ne dañu la yar te jàngaluñ la ab dof ngay nekk maanaam tey boo rombee ci nit ki mbedd mi tey ji man mën na maa génn fekk benn waay boo xam ne jàngal yar nañ ko wala jàngaluñ ko lu ma ko teg maanaam mu nangu léegi nag bu fekkee ne yar nañ la jàngal nañ nag ci ngay soor a nekk nit koo xam ne ku nite nga ba lépp luñ la teg nga war a xam jaadu na wala jaaduwul luñ la dénk tamit nga mën ko defar moo tax éducation maanaam ci wàllu yar ak jàngale moom sëriñ bi dafa wax ne ñaar yooyu ñoo war di lënkalikoo bu fekkee ne am na woy bu ci war a manqué na na na njàng mi manqué mais yar moom bu manqué mukk moo tax lu lu fonkoon la sa chaque jour tamit da ko doon doon jox ay recommandation boo demee ci bindam da nga ko ciy gis fréquemment muy mu ci revenir kon sa njàng maanaam élément la bu am importance ci ci ci ci ci kii waaw waaw boo boo xoolee boo xoolee boo xoolee boo xoolee fi mu nekk nii ci wàllu finance ci wàllu économie si dañuy wax li ñuy wax financement participatif mais bu ñuy bu ñuy bu ñu def historique bi bu ñu wax di ko date souvent dañu dañuy jël Canada wane ne Canada moom bokk na ci dëkk wala mooy dëkk bi njëkk a pratiquer financement participatif léegi te ñoom boo xoolee Canada date biñ koy jox mooy 1990 te boo ñëwee ci murid yi ñoom déjà 1917. ñu ngi pratiquer financement participatif ndax financement participatif mooy par exemple su fekkee ne benn travaux publics dafa nekk ñu ne ñu ne léegi euh, ñi ko ñi communauté boobu kenn ku ne na am lu mu joxe pour ñu mën a financer travaux boobu loolu nag depuis 1917 par exemple bi Serigne Touba di defar jumaay Jurbel bi ci la njëkk woote ne ne na murit bu ne na joxe 28 francs jamono yooyu noonu 28 francs bi ñu ko dajalee ci lañ defar jumaa ji a Euh, euh, pratiquer euh, le financement participatif donte nag peut-être ñun li li ñuy manqué mooy di di expliquer suñu ay pratique wala di ko conceptualiser conceptualiser ndax bu ñu ko conceptualiser wul du duñ ko jàngale ci université yi duñ ko transmettre ñeneen ñi mais bi ko Canada par exemple conceptualiser léegi Canada lañ wax ne ñoom ñoo ko moom ñoo ko njëkk pratiquer te ñoom Canada 1990 te 1990 ak 1917 xam nga sori antoona kon ñun ñoo leen ko njëkk pratiquer mais nag ñun dañuy nekk trop dans <laughs> waaw ma maanaam parce que économie parce que booy booy xool ci wàllu économie li tax mu am doole parce que dañu wax ne économie euh, am na ci li ñuy wax euh, euh, communautaire da ciy da ciy joué parce que boo xoolee juif yi li tax seen économie dëgër bokk na ci bu ñuy bu ñuy bu ñuy jënd dara souvent bala ku ci yor xaalis balaa xaalis bay génn lu mu gàtt gàtt xaalis boobu noonu dina tourner autour de quatre wala cinq personnes minimum. loolu mooy tax ñoom ñu am doole murid tamit bokk na ci loolu ñoom seen seen xaalis tamit day tourner souvent ci seen biir quelques personnes mais boo gisee yeneen communauté li tax am doole maanaam bu fekkee li ngay jënd li ngay jënd euh, boo bu ma su ma soxlaa ndox wala su ma soxlaa euh, yére wala dàll si beneen nit laa koy jëndee man suma communauté du gaaw a am doole mais bu fekkee ne ba lu ñu bëri lu ñuy jënd ci suñu communauté lañ lay am xaalis bi tourné suñ loolu day automatiquement day créer benn économie boo xam ne day am doole léegi nag lu loolu tax na ci dëkku africain yi ñu am doole ndax tey jii Sénégal lu ci bëri lu muy soxla euh, da koy dem jëndi beneen dëkk beneen beneen beneen beneen beneen beneen pays moo xam wàllu technologie wàllu wàllu wàllu dund wàllu ba ci ceeb bi ñuy lekk lu ci bëri loolu tax pour ñu am économie bu dëgër du du du du du du kii moo tax fan maa ngi gis def naa ñu ne Ousmane Sonko nee na day. monnaie locale mais monnaie locale su benn économie du mën a nekk faaw économie locale bu développé maanaam d' abord jiitu monnaie locale soo nekk sinon bu loolu amul du mën a nekk tey jii euh, boo xoolee li ñuy wax européens yi lu tax ñu créé euro parce que ñoom France par exemple Allemagne mooy premier partenaire am lu ëpp lu muy jëndee Allemagne la koy jënd Allemagne tamit noonu Italie Espagne ñoom dañuy jëndante seen biir te ñun par exemple franc CFA bi ñuy utiliser ni amul sens parce que Sénégal presque moom Mali duñ utiliser lu bëri amul produit yu ñuy jaay Mali Mali peut-être dana jël ay. ay yi muy exporté di ko jaalee port Sénégal yi kii nii Sénégal Côte d'Ivoire amul benn sens ñuy ñuy bokk monnaie parce que li ñu échange bariwul maanaam loolu bu échange amul ci entre yi euh, c'est pas la peine ñu ñuy partager monnaie léegi nag murid yi ñoom déjà am nañ communauté communauté bi xaw na solidaire seen biir moo tax lu ci bëri tey man bu ma ko soxla damay xool sama benn mbokk taalibe wala yu dem noonu moo tax ñu dem ba am benn benn esprit de moo tax seen économie day day day day day day day gaaw a développé ñoo fi gën a ñoo esprit communautaire communautaire boobu ñu amee moo tax ñoo xaw a gën a dëgër ci wàllu économie ci Sénégal que par rapport ak yeneen économie te te Sénégal bu ko état bi bu état bi appuyé woon par exemple euh, par exemple xam nga boo xoolee fi ne banque yi dañ ne banque CBAO presque moo nekk première banque fi nekk nii daanaka ñu ngi commencé jiitu banque française yi fi nekk mais ñun tey ji pour man bu ñu colla bu état collaboré woon ak murid yi facilement mën nañu am banque nationale boo xam ne mooy parce que tey ji bu sëñ bi jaare ko ci sa xalif général ne mu ne murid yëpp nañ dem ubbi foofu compte automatiquement yeneen banque yi sax dañuy dem fay boo muy tuuti ndax entreprise yu bëri yi nationales yi ci murid la moo tax pour man euh, état dafa waroon a appuyé wu ci communauté yi moo xam murid yi wala tijaan wala yu mën di doon pour gën a mën a développer économie mais au lieu de loolu peut être am na ko at boo xam ne mën nga wax ne daf leen di xeex peut être peut ñoom yi nekk Sénégal doole waaye jàpp naa ne euh, yoonu murid wala communauté yi am nañ benn esprit de communautaire boo xamante bi ne am na benn économie bu ciy dox boo xamante bi ne am na études yu bëri par exemple am na benn économiste Felwine Sarr bind na benn téere Afrotopia wane exactement maanaam euh, maanaam économie relationnelle sax la koy tuddee moom wane économie relationnelle bi nekk ci murid yi ak naka lañ ci mën a appuyé pour mu développer Sénégal mais nag malheureusement foo mu accompagner ñu accompagner ko daal. waaw xid xidma xidma xam nga man xaadim laa tudd mhm. xidma ak xaadim ñu bokk ci racine même racine bu ñu jógee maanaam euh, xidma mooy ngay jëf dara te yàlla rek tax jubluwoo ci leneen mhm. bu ñu ko doon comparer ci olof ci ci français mi ngi mel ni bénévolat xam nga tubaab bi da xool église yi léeg-léeg dañ jël benn groupe yóbbu leen si benn village ñu nekk foofu di faj di faj di faj xale yi di leen di leen bënal ay teen loolu mooy bénévolat maanaam xidma timit maanaam Serigne Touba moom dafa wax ni dundam daf ko jël di ko xidmaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu tax mu tudd xaadim mooy koy xidma day xidma maanaam xaadim mooy maanaam le xaadimu rasul mooy le serviteur du prophète mooy xidma mooy service maanaam les deux mots sont la même le même racine maanaam moom dundam yëpp daf ko jagleel yonent bi di ko xidmaal yonent bi moom Serigne Touba moo tax mu tudd xaadimu rasul xidma nag mooy bépp jëf bu nit di def boo xamante bii ne wuti ci salaire mooy daf ko def maanaam tey su su su ma romboon benn par exemple benn mag mu xaw a mu xaw mag yor ay bagage attunu ko man mën naa ko jël xidmaal ko yanul ko ko ba fa mu jëm waaye jubluwuma ci mu fay ma wala mu def ma dara su rombee nit mu mu am benn soxla man mën na ma war jël sama soxla bi mu doon wala wala dara jël ko xidmaal ma xidma mooy bépp jëf nit di def bu baax te yàlla rek nga ci moo tax nga di ko def jubloo ci ku la ci fay jubloo ku la ci gërëm Serigne Touba euh, exemple bu parfait la ci ndax moom dafa bañ ko ba ne dundam yëpp daf koy xidmaal yonante bi sallallahu alayhi wasallam ba too loolu tax mu tudd xaadimu rasul kon notion la bu am solo tamit ci yoonu ci yoonu moom moom dañu wax ne moom sëñ bi daf ko bind mu ne moom euh, bi muy tàmbali mission dafa signé ab pacte ak yàlla daan ne yàlla lii ma lay liggéeyal ak di ko liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa du ma ci du ma ci masa utiliser ay armes léegi nag boo xoolee ñi ko jiitu woon euh, am na ci ñoo xamante bi ne dañoo wut ay ay ay ay armes di taxawal islam def jihad am na ci ñoo xam ne am na ci ay bataille yoo xam dañ koo gañe am na ci yoo xam dañ leen a gañe mais sëriñ bi moom dafa wax ne diirub mission bi li muy li muy dox du masa utiliser violence parce que moom pacte la boo xam daf ko signé entre moom ak ak yàlla léegi bu signé bu bu génnee bu génnee ci pacte boobu rek def lu wutee ak loolu rek day day day liggéey mission bépp day day yàqu kon maanaam non violence nekkul buñ ko comparé ak yeneen ñi nga xam ñoo ko jiitu woon parce que souvent bu ñu wax au niveau mondial bu ñu wax non violence dañuy wax ay Gandhi wax euh, Martin Luther King wala wax Nelson Mandela mais ñooñ boo étudier par exemple euh, Mandela moom dafa wax ne la non ko jël comme tactique de guerre mais nekkul principe bu mu gëm maanaam sëñ Tuubaa nag moom daf ne principe la boo xam daf ko gëm du ko mës a utiliser maanaam du ko utiliser du ko mës a violer mais nag non seulement de la dafa wax ne su fekkoon ne Afrique du Sud jël ay armes dina may mu gagné bi maanaam mu jël ay armes kon Sëriñ Tuubaa maanaam non violence da ko pratiquer mais aussi dafa nekk def ko jël comme principe boo xam daf ko gëm mais nekkul comme tactique de guerre moom moom même daf ne su jëloon ay armes sax gagné tubaab bi du jël arme su leeroon ne bu jëlee arme jàkkaarloog tubaab bi gagné leen du jël. parce que parce que moom dafa dafa dafa dafa jàpp ne bu jàmm amul leneen mënta am maanaam pierre angulaire mooy loo xamante bi ne mooy leel mooy li nga xamante bi ne mooy fondation boo xam ne lépp ci lay lépp lu ñëwaat moom moom bu loolu amul nag leneen du mën a am dañu wax am na benn rakkam maam seex Anta dafa wax ne dafa dafa mës a jël ab fital indil ko ko indil ko sëñ Touba ne ko euh, fital gii de baax na euh, ci ci sécurité kër gi mun ne ko waaw baax na de waaye mun ne ko fital lu la may soo ko tegee ñàkk ko mooy mooy kon moom moom mësta lu dul jàmm maanaam jàmm daal mooy fondation léppam après lu cay tegu nag soo tegu sans jàmm sans sans la paix maanaam moom jàpp na ne leneen mënut a taxaw te it maanaam maanaam maanaam maanaam l'islam tamit loolu lay prôné maanaam l'islam tey jii dafa wax ne maanaam boo ngeen tasee ak sa mbokk wala sax sa sa dëkkandoo asalaamaaleykum yàlla na nga am jàmm nga koy nuyoo loolu mooy nuyoo l'islam maanaam nuyoo l'islam asalaamaaleykum mooy yàlla na nga am jàmm kon jàmm tamit maanaam maanaam maanaam maanaam mooy li nga xamante bi ne lu lu kii la ndax même ba ci àjjana dañuy wax ne juróom-ñaari étape la mais am na ci àjjana boo xamante bi ne këru jàmm lañ koy wax daaru salaam kon jàmm non seulement lislaam daf koy prôné mais Serigne Touba gën na ñëw gën a focaliser wu ci aspect boobu noonu pour wane ne lu dul moom leneen lu lu lu lu am rek boo ko amee boo amee alal wala nga am wér wala nga am loo am te amoo jàmm loolu du neex tax moom léppam da ko tegoon ci jàmm lu cay tegu na après soor ca tegu jàpp naa ne peut-être maanaam lu baax la parce que ay tension xawoon na am kan euh, bi peut-être victoire bi tax na nit ñi xaw a kii tuuti euh, xaw a xaw a kontaan xaw a bëgg mais tamit jàpp naa ne dafay jàll léegi ñu ñu demaat ci réalité dëkk bi kon li ëpp solo nag mooy fexe ba ñi nga xamante bi ne ñoo nekk le responsables euh, les autorités ñu gën a gën a góorgóorlu ci soxla askan wi ci soxla ci soxla nit ñi ci ci soxla dëkk bi ba nga xamante bi ne même buñ demoon kaan wala ku mboon gañoon tamit nit ñi duñ duñ duñ kii ndax moom euh, euh, dëgg la nit ñi léeg-léeg ñu kontaan baax na waaye daal ñu am dund bu niveau dund bu baax moo gën moo gën loolu lépp que ay ay ay victoire donte ñun en tant que sénégalais dañ ci dañ ci dañ si dañ ci dañ ciy kontaan dañ ciy bëgg ndaxte euh, boo boo boo gisee sa réew si àdduna bi fépp ñu koy tudd ndax ndax kaan bi loolu da dana dana tax turu Sénégal gën a gën a gën a jëm ci kanam waaye daal euh, nañ xam ne politique bi pour mu gën a baax dëgg dëgg dëgg dëgg nañ jël intérêt nit ñi intérêt population yi fexe ko euh, reg fexe ko résoudre bu ko defee nit ñi euh, euh, danañ am jàmm danañ dund dund bu daal mais bu fekkee nit ñi seen ay besoins primaires ni ñu koy waxee ay lekk ay naan ay ay faju yooyu résoudre ñu ko mën nañu wax ne sax di si quelque temps maanaam dëkk bi day nekk ci insécurité boo xamante bi ne tout le temps mën na mën na mën na mën na mën na mën na mën na jàmm ji mën na yàqu waaw xanaa di leen sant ci dalal gi ngeen ñu dalal ndaxte wax dëgg yàlla euh, kontaan nañ si lool parce que ñun man dama jàpp ne euh, euh, fépp fu ñu ma woo pour ma wax si téere bi rek man dama fay dem parce que dama ko jàppee comme sama participation ci yaatal njàngaleem sëñ Touba parce que ñun jàppe wuñ suñu bopp ab sëriñ jàpp dañ ko jàppee comme disciple boo xamante bi ne li ñu war mooy fexe gëstu ba xam njàngaleem sëñ Touba njàngale moom tamit ñu fexe ko partager ak ñeneen kon yéen bu ngeen ñu mayee possibilité waa euh, actu vingt et un deux cent ñu ñu ñëw fi di ko di ko di ko def ak yéen dañ leen di dañ leen di sant ci loolu di ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa mu euh, yokk seen euh, kër gi ba lépp lu ngeen bëgg rek maanaam télévision ak rajo ak lépp lu ngeen fu ngeen ambition yu ngeen am rek ngeen matal ko ba li ngeen bëgg a def ci réew mi ngeen def ko daal sant nañ bu baax a A221, une autre vision de la télé.